loolu nag am nañ benn téere bu ñu bu ñu may fii muy téere président Macky Sall bi Paco téere bi euh, muy conviction républicaine euh, président keroog moom la doon diral euh, moom la doon gaaral ba ci la waxee wàllum désert wu tirailleurs yi téere bi nag man leen rek a ma si jaaxal waa APR yi ñoom liiruñu ko ah. gisaguma APR bu liir téere bi koo laaj mu ne liirul man tàmm naa tàmmale naa ko liir nag tàmmale naa si gis ay faute ay déngaam yoo xam ne hmm, ah, ah si ah euh, Khadija Khadija xaaral ma laaj la su ma la nee euh, mon discours et mon action cadre avec l'essentiel des implica des indications mon discours et mon action cadre cadre noo ko bindee. ENT. waaw fii de E laa fi gis. benn benn benn ngoog vraiment. E. de frappe <laughs> wala sileps. <laughs> sileps sileps <laughs> mën na nekk sileps am na ñu ko expliqué woon noonu. Ah, sileps mën na e, e, bi nag il faut ñu jàng ko Pape Djibi lañ koy jox mu mu mu jàngal ñu ko ñëw wax ñu li si nekk. président discours ay discours am daal la dajale. def si bon président bindul téere en tant que tel. ay discours am lañ dajale def si donc téere la boo xam ni ay discours président moo si nekk Pape lii ragoo ko. non non. war nga ko lire quand même. dinaa waa APR yi tamit ni ñuy lire parce que président bu demee ba génn téere waa APR yëpp dañ ko waroon lire mais APR taseegu ma seeg ku lire téere bi. Euh, dañuy am benn élément bu ñu bugg xool si wàllum tuub balaa ñuy dikkaat si euh, jotaay bi léegi euh, tout est là ak imam Ahmed Khalifa Niass.